يا الله الله الله الله يا الله الله ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني قليل فكنت جاني موهبة من mbokk internet jàmm ji info ñu ngi ba léegi Medina Baye ci cadre gàmmu 2019 bi tey ñu ngi fii ci ëttu El Hadj alxalifa nga xam ne moo njëkk a nekk xalifa Cheikh ñas ci doomam yi euh, ñu toog nii ak Cheikh Baye Alaaji ñas euh, di doom ci El Hadj Abdoulaye moomu euh, fas yéena seq ak moom waxtaan Cheikh Baye Alaaji ñu ngi lay nuyu. suñu Hmm. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayid almursalin wa imaami almuttaqin wa qaid algur almuhajalin mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma baadu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp di ñaan yàlla weer bi ñu dugg muy weer yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ñu ñi tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan yàlla gan yi ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm eh, jële fi njëriñ ak barke ak bépp xéwal boo xamante ni dana rot ci weer bu tedd bi mu weer yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di ndokkeel Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci weeram bii nga xamante ni moo ci njëkk ndokkeel boppam di wax hani an li Ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalum badaali di ndokkeel xalifaam bi muy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa mi fi nekk tey jii toog ci chaise bi nga xamante ni moom mooy chaise u Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu di ndokkeel mboole mi rakkam ak mboole mi njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ci ay set ci doom ci taalibe ci xarit ci soppe ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci weer bu màgg bi di am mbégte ak kontante ci jotaay bi nga xamante ni ñu ngi bëgg a tàmbale pour waxtaanee ko ci laaj bi ñu laaj muy ci suñu waajur alxaaji abdullahi ibni cheikh ibrahim Niass nga xam ne moo fi toogoon nekkoon fi xalifa euh, ci ginnaaw moolana cheikh ibrahim Niass radiallahu anhu a uutu woon ko ci lépp loo xamante ni bàyyi daana ko def mu taxawoon ca taxawaay bi gën a rafet ci tàllal lislaam ci uufaat njaboot gi ci jàngale ci taxaw ci rawatina gàmmu ak tafsir alquran ci weeru koor waaye it ànd ak loolu yëpp boole ko ak li nga xamante ni tamit moom mooy responsabilité bi nga xam ne moom moo gàddu woon nekkoon ci kawam ci lu aju ci mbiru jullit yi fuñ mën di nekk daana xëy di dox di lu ñetti li nga xamante ni moom mooy mbiru mboolem jullit yi ak lu aju ci kër gi aju ci taalibe bàyyi ah mu nekk nag nit koo xamante ni comme ni ko moo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu yare te seede ci moom ay jikko yu kawe ah, mu juddoo fi nga xamante ni moom mooy kawlax ca Léona Niassène fa la juddoo Ah, ba mu demee ba mat dal alquran fekk bàyyi sànc na madina mu indi ko fi boole kook ay sëriñ daara ku mel ni Baye Alaaji Assa moom moo ko njëkk a jàngal ba mu demee bay waaj a wattu alquran mu yóbbu ko ci eh, daara rabbaani ay naari gànnaar pour ñu gën a defaral làmmiñam pour mu mën a am lu ñuy wax ma maxaarijul xuruuf mooy làmmiñ bi set ba mu mën a tudd baat yi ci arab niñ koy tuddee mu tari alquran tari bu rafet baayam jël ko di ko jàngal xam-xam muy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu fekk na boobu jaar na ci ay loxo Serigne Daara jaar na ci Serigne Daara osmaan Ndiaye mi nga xamante ni moom mooy Ousmane Ndiaye bu mag euh, jaar na ci loxoom jàngal na ko lenn avant mi génn àddina ginnaaw ga Seydi Ali Cissé jàngal na ko. bàyyi radiallahu anhu mottali njàngam ba am xam-xam lépp lu ñuy jàng ci wàllu xam-xam lu ko dalee ci laxdari ba lëwal lu ko dalee ci ajarumiya ba lexmiraar ci grammaire la ci arab ak lu ñuy wax fiq jàng mbooleem lu ñuy wax langue arab ci balaaxa ci mantiq ci philo Euh, yëpp mu jàng ko jàng tafsir alquran ci roon baayam ba nga xamante ni rad baay radiyallahu anhu gërëm ko seedaloo ko xam-xam ni ki nga xamante ni noonu la ko Seydi Ali Cissé ak maam Serigne Mbaye Niass ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo nekkoon magu démb ya seedeel ko xam-xam bu rafet ñëw ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ne ko lépp loo xamante ni nit dana ko jàng ma dana ko xam ci wàllu xam-xam sa doom ji ñu ngi lay seedal na la jàng na ko xam na ko muy El Hadj mu jóge fa nag nekk ci wetu baayam di ko dimbale ci li aju ci dëkk bi ak li aju ci biti réew lépp loo xamante ni Baye radiyallahu anhu eh, daana ko def dafay oo alaaji Abdoulaye mu nekk ci wetam xaajil euh, mushri kenn ci muqaddam yi bàyyi la nettali na ma nee na ma bu bëccëgee alxaaji Abdoulaye dafay nekk ci wetu bàyyi waxtu bu nekk ñooy ànd dem ci jumaa ja ñooy ànd dem tool bu amee gan gu jugee ci gouvernement bi ay autorité wala ñu jugee ci yeneen réew yi moog alaaji Abdoulaye ñoo fay nekk mu ne buñ demee ba nga xamante ni tamit ñëpp dem neen bay dellu seen néeg pour tëdd nelaw guddi gi mu ne Baye ak El Hadj dañuy nekk ci néeg ba tëju mu ne di waxtaan di càmbar ay mbir yoo xamante ni mu ne kenn du ko fekkee ñoom ñaar rek ñoo fay nekk ba guddi gi sori El Hadj Abdoulaye doo ko génn néegam foofu la ko tàmbalee di ko e, di ko teete di ko jox ay mbir yoo xamante ni pour préparer ko ëllëg na xam ne ne mooy taawam te bu fi jógee ginnaawam moom moo war a amee njaboot gi moo leen di uuf ndax mooy seen mag yàlla def alhamdulilah mu nekk ak baayam di ko xidma di ko liggéeyal gisutoon na moom doomi baay la rekk waaye dafa gisoon na ne baay baayam la waaye ginnaaw loolu sëriñam la ndax gis ne naari gànnaar yeeg awsa yeeg euh, fu nekk ci àddina bi ñun ñaa ngi ñëw Soudan caat Niger ñu ngi ñëw di uy si baay ci li nga xamante ni yàlla may na ko ko mooy fayda bi mu gis na ne ñii ñëw nii di ut si lañuy ut si si baay ñoom mu jaral leen ñu bàyyi seen dëkk yi bàyyi seen lépp ñëw di liggéeyal baay moom mu jege baay baay nekk di ay di waajuram bu fekkee gisut lii nga xamante ni moom la mag ñi jugee ci biti di ko ut si ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu di ko jël mu di leen koy jox mu ne bu boobaa kon maanaam dafay nekk loo xam ne pertement la ci moom mu summi mbubu doom ji summi lépp ñëw nekk bëkk néeg ñëw nekk taalibe nekk ci ron Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu di rëj-rëjloo ak góor ñi ci itte yu mag yi lépp lum am ci ginnaaw baayam nekk gim nekkoon taalibe ak di tarbiye Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu moo ko may loolu benn at ànd naag Mawlana Cheikh Ibrahim ci Màkka ñuy aj bañ demee ba ca aj ga alxaaji Abdullahi suñu waajur liggéeyal bàyyi foofu noonu comme ni mu ko doon defaral fii rek ci Madina ak ci senegal yëpp ñu ne bàyyi dafa toog benn mama bàyyi daf daan yeey góor daf koo bëggoon mu ne mu toog benn instant rek ne moom daal dafa namm góor dafa bëgg ñu utal ko góor ci Màkka ñu gis ne ne loolu daal lu jafe la alaaji Abdoulaye daal di summeeku jug di wër foofu noonu biir Màkka wër ba sonn gisut mu ne day dem jëdda dem ci ay bërëb paas pour seetal moo euh, Mawlana Cheikh Ibrahim soxlaam boobu nga xamante moom mooy guru alaaji Abdoulaye sonni lool waaye ba muy ñëw indaale na guru gi ba mu ñëwee fekk tamit bàyyi moom it yàgg gi mu yàgg alaaji yàgg góor gi génn ci xelam ba sëñ bi ñëw indi ko guru gi jox ko ko mu ne ko a ah, man kat eh, góor gi daal bàyyi naa yeey góoru daal eh, papaas ne ko ah bàyyi yeey góoru ak yow li ma ci sonnee daj nii yëpp te nga ne góoru nga ne ma indiloo ko nga ne bàyyeen ko mu ne ko waaw mu ne ko man mënumaa jaamu ñaari yàlla benn yàlla rek laa mën a jaamu aju gi sama xel mi di aju ci góoru daal bu dafay mel ni daal leneen laay jaamu lu duwut yàlla moo tax daal bàyyi naa góoru léegi sama xel mi yëpp ci yàlla laa ko def léegi mu ne moom noonu la jaaree bàyyi alaaj na ko man tamit danaa bàyyi guru bàyyi na ko déedéet bu ko bàyyi am na ay njëriñ yu ci nekk dina la jëriñ dee koy yëy loolu bokk na ci di taxoon foo gisaan alaaj Ablaay rek góor gaa ci gémmiñ ji ah ndigal loolu la ci daan euh, sàkku ak li ku ko bàyyi wax moo taxoon mu ko def mu koy def mu ak yeneen yoo xamante ni ci gis nga am na benn vidéo boo xamante sax ñu ngi ko wane ci Màkka bàyyi di di di di di daw di daw Safa ak Marwa Alxaaji Abdoulaye mu ngi ci ginnaawam fu mu daan dem rek ñooy ànd ci xidma boobu noonu nag nga xamante ni xidma na ko ko ci biti ak ci biir ci la bàyyi woyee ay ay woy woy ko doomam Alxaaji Abdoulaye woyu ko ngir na doomam waaye dafa gis ne ne jàmbaar la ci jàmbaar yi dafa gis ne it góor la ci góor yàlla yi mu woy ko woy yooyu noonu wajatu najlil haaja abdillahi samiya walidi taqil awaahi xadamani ka xidmatil wasiri bi adabin wa xuluqin kabiri jazaahu rabbi ahsana aljazaayi wa daama mahfuudan min al aadaayi wa aasha aaliman taqiyan barran mubaarakan wa huwa yunilul xayra ne fekk naa sama doom bi ma dippee sama baay mi nga xam ne ku ragal yàlla la kuy delluwaa koon li ci boromam na liggéeyal na ma ni jaraaf di liggéeyalee buur ànd ak teggin ak jikko ju kawe yal na yàlla fay ko jazaahu rabbi ahsana jazaayi wa daama mahfuudan min al yal na yàlla fay ko aw xiiw te yal na yàlla wattu ko ci noon yi yàlla bum bu noon agsi ci moom te yal na dund nekk di borom xam-xam nekk di ku ragal yàlla nekk di koo xam ne borom mbaax la ku baaxe ay waajuram la nekk kuñ barkeel nekkit koo xamante ni dafay am xiw ba noppi di ko joxe kooku alhamdulilah li bàyyi ñaanu ci moom yépp feeñ na gis neen ko لي فكنت جاني موهي